asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen koy baalo ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawféex saadatu daara yi nag ñu ngi koy sàkku ci yéen mbokk yi tey dañoo leen indil màndarga wane ne kuy xëccoo dara lu mel ne palaas wala pal rawatina présidentielle yi nga xam ne. moom lañ génn màndarga yoo xam ne ku koy faral di gént da nga xam ne kii moo war falo falaw loolu nag balañ ci dikk ah, bari na ci ñoo xam ne mel na ne ñu ngi doon woote wàllu baatin ak wàllu mën a gis te loolu lépp luñ ci jublu mooy ak bëgg àddina ak ak wanewu wane xam-xam te loolu daanaka baatin loolu taxu ko jóg moo tax ñu baree bari daanu ci ndax baatin nekkul loo xam ne lu ñuy fortaatu la nekkul loo xam ne lu ñuy làmbatu la te mel na ni bala nga mën a am faaw nga am yoo xam ne faaw nga mën koo ràññeetle li ñuy tudde alqada ak alqadar mooy décision nga xam ne borom bi jël na ko alqadar nag mooy dogal bi lu mel ni décret yaar yooyu bo bi subhaanahu wa taala mën na la koy wan ci nim la koy wane nag su fekkee yow xamoo luy baatin xamoo lan mooy kàccu mën nga koy réere mbir mën nga gis dara ba noppi loola teppi ko te noonu nag lu koy indi mooy benn ñàkk baatin ñaareel bi mooy ñàkk ràññetle ndax xam-xam ak ràññil la bu ci nekk bokkut te lu jëm ci wàllu kashfu day mbir mu xóot a xóot moo xam ne ñaare nga xam ne ñaare boo amul ak ràññil la rek danga man nga caa réer kon loolu lu mat a bàyyi xel la te wàllu kashfu li ci gën a woyof mooy gént nga xam ne gént ñu bare bari mënuñ ñu koy firi te moo gën a woyof ci wàllu baatin kon woote woo loo xam ne nekkut ci yow wala di ko wanewu ak di woote ak baatin ñaare ñi ci ëpp koy def yàlla da leen di daaneel tey tamit ku koy faral di ko def da nga dem ba suñ borom da lay gën a nëbbu boppam dootoo xam ci moom dara ndax day mel ne da ngay waxal borom bi subhaanahu wa taala loo xam ne wala bokk nga koy fenal li wax ci alquran ne waman waman azlamu mimman iftara ala allahi kaziba waman azlamu mimman kaziban te loolu bokk na ci sosal boroom bi mooy wax ne yàlla wan na ma nangam ak nangam te li ngay wax du dëgg loolu bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar yu mata moytu la kon ñu far félicité waale mboolem sénégalais yi ndax mel na ni bëgg nañ ak soppiku bëgg nañ ak soppiku maanaam alternance mel na ni loolu lañ loolu lañ bëgg loolu lañ woote kon loolu may fàttali rek ginnaaw loola mooy dogal borom bi subhaanahu wa taala te dogal ba ku taxaw bëgg a dindi loolu li yàlla dogal da ngay sonn rek waaye faamu li yàlla dogal loolu mooy am faamu li yàlla dogal loolu mooy mooy am kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ki nga xam ne moom la Sénégal yi tànn yàlla dimbali ko yàlla kàttanal ko yàlla téeñal ko ba mën a àttan réew mi yàlla may ko doole ba mën a taxaw réew mi ni ko nit ñi amee yaakaar ci moom am ñi mu àndal ginnaaw loolu nag xam nga ne Sénégal moom régime présidentiel la muy binti parti muy parti yu bari yoo xam ne ñoo koy ñoo koy ñoo koy xëccoo comme ni ñu ko génne ci élection yi jàll muy démocratie nga xam ne démocratie wax nañ ne du dara lu dul protéger droit yi nga xam ne moom la citoyen bi am ci constitution bi droit yooyu nag bokk na ci nit ñi di wax seeni xalaat di wax seeni bëgg-bëgg ak di défendre luñ tudd état de droit état de droit nag mooy lépp looy def nga teg ko ci yoon bañ a jàdd yoon benn yoon kon bokk nag régime ay régime dafa bari bokk nag régime monarque monarchie monarchie mooy buur nga xam ne daanaka moom du jàll ci démocratie wala ba moom duñ ko wate lu ñuy doon la boo demee sax ci république moom it ay yu bari la ndax am na régime régime am na république yoo xam ne régime présidentiel la am na république yoo xam ne semi présidentiel la am na république yoo xam ne sax parlementaire la ba ci am na république yoo xam ne yëpp régime islamique la waaye yooyu yëpp daanaka ci démocratie lay dox te suñu réew mi bokk ci. kon képp koo xam ne falu nga li nga war a njëkk a bàyyi xel mooy nit ñi ci seen jëmmi bopp seen àq ak seeni yelleef nga bañ koo sarfaane ak seeni alal ak alal jiñ la dénk moom it nga sàmmal leen ko loolu bokk na ci képp koo xam ne falu nga war nga cee bàyyi xel saa yu nekk te mel na ni bokk na ci li fol ni sàggane ñaar yooyu ak dem ba fàtte ko kon mbokk yi incha allah buñ ñëwaatee tegtal yooyu ñu la dig ci gént yi nga xam ne ñaare ku ko faral di gént da day tegtale ak falu moo xam falu président la moo xam falu ab place la wala directeur général waaye ci beneen jataay lay doon ñoom may na ci ay takk-takk yoo xam ne incha allah boo ko jàppee yu mel noonu boo ko gëntatee rek donc ko mën a xamal sa bopp te mel na ne loolu ci wàllu baatin mooy li gën a woyof te ñu baree bari sax xàmmee wuñ ko te nee nañu ay kilifa lañ kon nga yëpp gën a bàyyi xel chaîne bi ak di ko di ci ab di ko abonné ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy yëkkati ak li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.